jërëjëf mbokk yi ñu tàmm bàyyi xel fii ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew fépp fu ngeen mën ci nekk ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm euh, ci bàyyi xel bi rawatina yi nga xam ne yéen ñuy topp ci seen émission sur la question euh, tey ji nag ñu invité boo xam ne mën nañ ni du gan ci ñun ndax yi yàgg nañoo sekk ak moom ci ay jotaay waxtaan ci lu jëm ci wàllu actualité waaye tam ci lu jëm ci wàllum diine ndax mën nañ ne euh, kilifa diine la ci réew bu Sénégal waaye tam bokk ci njabootu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul rawatina njabootu Serigne Fallou rawatina njabootu Cheikh Mouhamadou baara Bara Mbacké euh, Fallilu mi nga xam ne moom moo nekkoon juróom-benneelu xalifa général di murit lu bari ci dundam gi euh, daanaka moom mi mu nekk ko ci suufu keppaaram ba daanaka euh, lu bare bari mu mën koo waxtaane ci way juram wu sell woowu laataa nag ñu dugg ci biir waxtaan bi ndax xam ngeen ni bisu Cheikh Mouhamadou Lamine baara ñu ngi koy séentu ndax xam ngeen ni weeram moom mooy weeru sëriñ Fallou dañ koy bàyyi moom Serigne Saliou Mbacké bu Serigne nga xam ne ñoom ñoo ngi saan sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yal na yàlla sunu boroom nangu ziar soxna Awa noo ngi lay ziar bu baax yàq ñu ngi àndal. di jël ci ziar bi ak nuyoo bi saaxibul fadila cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal yàlla sunu borom tabaraka wa taala yàggal ko fi lool mu ànd ak wér. di ji teg si abul baraka mi nga xam ne moom la ñuy xoolee cheikh Mouhamadul Fadal. ak Cheikh Modou Moustapha moom Cheikh Modou Lamine ak njabootu Cheikh Modou Lamine gépp waaye ak jullit yëpp ak taalibi yëpp di la wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Mm-hmm. Uh, sëñ bi yaakaar naa ne ñetti at ci ginnaaw bu ma juumul wala ñeenti at defoon nañu jataay boo xam ne ci contexte bu mel nii la woon dañ doon nekkoon ci weeru rajab uh, taalibe yëpp sàkku woon nga waxtaane sa wayjur bu sell wa di sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacke Falilou ndax xam nañ ne daanaka ci njaboot gi bokk nga ci ñi nga xam ne dañoo takkoo woon ak moom uh, giirub dundam rawatina bi mu nekkee ci xilaaf ak sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu bëri nag di bëgg di dellusiwaat ci jikkoomi sell ya ak nekkinam rafet bi nga xam ne ni nekkoon na ko fi loolu tax mu nekk témoignage bu amoon solo tey ji ñu bëgg a dellu siwaat ci loolu buñ la doon posé question di la wax kan mooy Serigne Mouhamadou Lamine Bara lan nga ñuy tontu. waaw soxna Awa loolu moom li olof di wax rek wuude bi lu mu wax ci béy wi ñu ne der baa tax waaye yaakaar naa si Mouhamadou Lamine moom euh, euh, ku nekk ci réew mi wala bitim réew moon nga wax ci moom nit la woon koo xam ne sunu borom dimbale na ko li gën a jafe ci doomu aadama la ko yàlla defal mooy ñëpp bëgg la ñëpp ëmbul la cofeel goo xam ne euh, mëne si ko missaal rawatina nag ñi mu bokkal seexul xadim rawatina ñi ko yaakaar te ay murit waaye ñi nga xam ne it bokkuñu pas-pas ci wàllu tarix waaye ñoo bokk pas-pas ci wàllu diine yàlla dogaloon na amoon nañ ak cofeel ci moom amoon nañu alaaqa boo xam ne relation boo xam ne bu bu bu dëgër la woon bu bu rafet mu jëmm joo xam ne ci ni ñu mën a missaal daal euh, kiimaan la ci kiimaani yàlla yi donte gàtt na waaye euh, mënuñoo décrire ak dundam wala jëmmam waaye li nga xam te ni yàlla dogal na ñu fekke ko ci moom dund ko ak moom mën nañ ci wax as tuut ndax li yàlla dogal ñu xam ko te ñun ñooy ñi gën a néew na luñ ci xam xam ne dëkkuñoo ak moom sax euh, ah, mën nañoo wax lu bari ci moom nekkoon nit ku yaatu nit ku am yërmande nit ku tabe ci darajaam ndax tabe ñu bari ñu ko jàppee alal waaye maqaam yi ko yàlla may dara di ko yàlla may suñ borom dogal mu wàcce lépp yittewu ci dara ngir rek doomu aadama yi gën koo mën a jëme jege ndax loolu su ko defutoon la sunu borom waxoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf koy dal ndax yonente bi salaatu wasalaam bi ko sunu borom yónnee daf ko dafa dafa na ko da ngay wàcc sa daraja wala dama lay wàcce ba nga tollook nit ñi ngir nga mën a wax ñu dégg ndax yàlla bu yónnee woon malaaka wala jinne eh, nit ñi duñ jariñu ci moom loolu it mooy mooy dal Cheikh Modou Lamine waaye jëmm la joo xam ne euh, nun lu nu war nun ñi nga xam ne ni ay taalibeem lañ di ay njabootam fexe ba am ay royukaay yu ñu roy ci moom nan la ragale woon yàlla nan la fonke woon doomu aadama nan la sàmme woon kàddoom nan la doyloo woon nan la daan jaamoo yàlla nan la gëme woon Serigne Touba royteef yooyu ñun ñun ñi fi bàyyi ndéegun kenn ku ci nekk war naa mën a jël loolu daal ci royukaay ci ci jëmm jooju nga xam ne mooy Cheikh Modou xam nga bi mu nekkee euh, sëñ Fallou ci la nekk tamit Serigne Touba mu nekk ñaari kasket yoo xam ne nii mm, yaakaar naa daraja wala ndombak tànk foofu la mën a yem ci kaw suuf ci euh, ñun ci suñu gëm-gëm euh, mais laataa muy ñëw ci xilaafa gi laa bëggoon parce que ñu bëri dañoo yaakaar ne oyofte gi ci xilaafa gi la ko dab rek en tant que xalifa général des mourides mais malgré loolu dundam gi yëpp daanaka noonu la noonu la dundee woon. absolument mm-hmm. waaw loolu ma wax lu wér la ndax bi jógee ci daara ji 92. yaakaar naa ba ni mu demee àjjana bu dee tàggoon nañu comme lu munu ñàkk ci jamono rek la waaye bu nekk bu ñu nekkee ci biir réew moom du ñu am bis boo xam ni du ñu giseen ak moom wala du ñu yend ak moom. lu jiitu muy doon comme ni ko wolof fi waxee doon Cheikh Mouhamadoul Fadal ci atum 2000 ñu wax 14 février 2000 jëmm la joo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ak ak ak oyofam ci moom ñëpp xam nañ ak laa laabiram ñëpp xam nañ tamit ni mu dëddawoon àdduna te suñu borom dogal nag mu lépp lu nit di ëmb ci xam-xam wala doomu aadama di ko ëmb ci lu baax doomu aadama di ko ëmb ci lu yiw suñu borom dénkoon na ko waaye loolu lépp gisu ko ni nga ko waxee léegi ñu bari am na ñoo xam ne sax xamuñu ko woon bii mu doonee Seexul Xaddim wala at yu mujj yi mu doonee Seex Mudu Faadal ci la ko ñu bari xam waaye nun ni nga xam te daan nañ nekk ak moom saa bu nu xëyee dañu daan dem Mbàkke wala ci yeneen dëkk euh, bërëb ci réew mi wala ci dëkk bi dem ci garage su mécanicien yi dem ci grand place yi kër El Hadj Dieng Kambel googu toog na fa ba tey ba jamono yi mu doonee Serigne Touba sax ñëw na bis bëgg faa toog ñooñu ne ko fii dootuñ nangu nga toog fi ndax léegi euh, li li nga xam ne yàlla dogal na ko ci yow mu ne leen loolu moom du dara fa ma naan dem démb daa fekk ma war faa dem rek moo tax tey du tax ma soppi ko ndax dafay war daan wax naan nit bu dee bu dara ñëwee mu soppi ko day fekk nekkutoon ci la mu war a nekk. waaye su fekkee yaa ngi woon ci la nga war a nekk bu bu ci leneen yokki ko it doo war a doo soppeeku te loolu mooy li am. moom loolu la ko yàlla bindee woon fexe ba nit ñi ñeme ko fexe ba nit ñi jege si ko ba lépp lu ñu soxla ci moom daan wax ne nit koo xamante ni jóge na fa mu jóge wala mu yëkkati ab téléphone am woo ma téléphone su sañoon la mu bëgg bu dee saayir la dama koy faj su dee baati na damay ñaan ci yàlla ak sëriñ ñu mu faj ko. loolu nag da ko doon dund moo tax ba ni muy nekk xalifa général di mu da daan wuy téléphone di di dudd ay doom di julee ay néew di dem sarax di dem di dem màggal ndax xam na fépp fu mu teg tànkam ci saa saayir du yem ak fu mu ko tegul loolu bokkoon na ci euh, mbaax gi nga xam te ni bëggoon na nit ñi jariñ ci jëmam bi ndax suñu borom am na lu mu defoon ci moom te bëgg na kenn ku ci nekk euh, suñu borom séddale loolu ci ci ci jamoom ju tedd jooju. Mm-hmm. mu mel ne am na tamit aspect boo xam ne nii ñëpp ñoo ko seetlu mooy bëgg gi mu bëgg njabootam par exemple da ngay gis ay kilifa yu bëree bëri euh, souvent dañuy jéem a tàggalikoo ak seen njaboot pour pour raison yu bëree bëree bëri mais moom njabootam ala kulli àll dañ koy gis ci wetam. Mm-hmm. waaw loolu soxna si lu am solo te laaj nga laaj boo xam ne lu wér la ndax am na bis sama yu jigéen yi. tabaski wala korite di jub si mu fekk ñu ci biir néeg bi man ak moom ak kenn ci ñoom mu ñëw mu jox ko mu génn dem mu yàgg mu wokk na koy eh, kaay nga ñëw mu ne ko lii ma la jox de bu sa morom xamee ne jox naa la lu ñu toll rek boo léegi dootuma la jox daan na wax naan tamit kenn ku ci nekk ci yéen su toogee ci man bu mu tudd moromam ci li mu ko war tudd ku may nax nag ma ma nax ci wéetaay waaye waaye lu la keneen di defal jëfalanteeg man loolu sa yoon nekku ci. am na ci koo xam ne sax doomam joo xam ne jigéen la bis da koo laaj mu bañ mu ñëw di ko poñe naan ko te boobu mi ngi xam général mu ne ko bàyyi jox ma nangam mu naan na ko waaw euh, da may poñe waaw léegi bàyyil ma jox la daan na ah, Saliou gis nga de ñoom nii lañ may def ambaloon euh, nañu cofeel goo xam ne wax dëgg yàlla neexut neexut sax di waxtaan yi ndax xol ma naa tooy waaye nag dañuy jéem a dëgërlu te loolu boo xoolee dafay feeñ ci ñi nga xam te ni nekkutoon ak njabootam ci saayir mooy doomu aadama yi na ci ñoom couverture bi mu amoon ci ñun ñun ba ni mu nekkee xalif général ñooy añandoo ñooy reerandoo. loolu man firnde am na ci benn seede boo xam ne kooku man mosuma xam ne sax dafa nekkoon ak sëriñ bi euh, benn chauffeur la woon fekk ñoo dem benn mission sedda CEDEAO Guinée Bissau ci biir oto bi bu may nettali ak sëñ bi boo man ma sama xel yëpp ci nag si waxtaan yi ñu daan waxtaan ci la dem ci la demee ak ni mu ko daan dimbalee ak ni mu oyefe woon. ci laa xam ne nag sëñ bi euh, laabir gi yemalewu ko woon ci njabootu boppam gi waaye ci mbindeef yëpp la ko jëmale. wallaahi lu wér la ndax loolu noonu mu meloon ci njaboot bi dafa dem ba euh, tuuru bay ba génn ci bitti looloo waroon tey mu fonk doomu adama am yëg yëg-yëg bu mu am ci doomu aadama mas am bis bu koo xam ne dafa nekk Koungheul ñu jàpp ko mu am ku mu yoreel bor ñu daan ne ko koo fi xam ku la mën a fayal. mu daan ne man de xamu fu kenn waaye am na ku nekk Touba ko xam ne suñ ko woowee yaakaar naa dama fayal ñu ne ko kan mu ne Alaaji bi ne ko Alaaji Baara man mu ne mu daal di koy mbéj ne ko waaye xanaa da ngay fontu xalifa général des mourides nga naan buñ ma woowee dana ma fayal mu ne day maa laaj ma wax leen mu commandant bi ko jox ñu numéro am ci daa fekk ma toog mu daal di koy jox numéro mu daal di woote mu ne ko kooku mu ne ko Alaaji Mouhamadou Lamine Mbacke mu ne ko kan la mu ne ko man la commandant diw nekk Koungheul daa am ku ñu fi jàpp daal nee na Eh, daam kum yoroon ñeent fukki junni te nee na yow yaa ko mën a war a fayal sëñ bi ne waaw bu ngeen ko mënut a bàyyi rek wax leen ma fu ma leen ko yónnee ma fayal ko te yàlla xam na ne xamu ko mosu koo gis kawanaa bi daal ne ko déet sëñ bi ginnaaw ginnaaw eh, moom. confirmé nga ni mhm. bàyyil man dinaa yëkkati sama xaalis 200000 fay ko ci jot gi mu fexe ba ma jot la man. xam ne keroog commandant brigade bi moo génnee xaalis fay koo ko ngir jot gi mu jot sëñ sëñ Baara ndax mënul woon gëm ne tey comme benn xalifa général di murit nit mun na ko gaaw a jote noonu bis dañuy jël timis ba toog noonu ci ëtt bi rek am ku ñëw laajte daan ne Serigne Bara lay seet si fekk lay lay xool fekk moom lay wax mu ne ko man ci mun ne ko xalifa général di murit mu ne ko jàllal laaj laaj ñee mu daal di fekk ku wax Abdou Sall ñu toog mu daan ne ko sëñ Bara laay seet xalifa général mu ne ko mooy moom nga doon waxal ne dama nga ne toog Pape daal daan di jooy ci jooy ba nit ñi defal ko mu daan ne ñu daan ne ko looy jooy mu ne damaa jàppoon su ma ñëwee dinaa fi am ay fan doo ko teg bët waaye ma ñëw fekk ko ci ëtt mu toog. dégg naa nit daan yore fee téléphone sax dikk jox ko doo xam kan lay waxal mais day jël rek wuyu. dara wax loolu daan na ah, man kat ku woo ma kenn dara te yéen nag ku la woo nga naan boori vocal de bàyyi leen loolu nit ñi bu leen soxlaa leen di jot. ma nee man muy guddi muy bëccëg ku ma woo da ma jot ndax yorul ma kenn te nit ñi liñ may déglu am na bis bi ñenn ci njaboot gi ci noppal ko bëgg mu bàyyi téléphone mu daal di mu daal di bañ loolu nag mu xëy ma dugg si rek mu ne ma ba bokkoo ci ñi ma doon tere téléphone mu ne ko déedéet mu ne ma kaay ma wax la li tax ma yor téléphone te boobu mi ngi xalifa général de ma ne ko waaw mu am na bis bi sëñ Moustapha Bassirou nelawee Muntaxa daf maa woo fajar ma jóg dem taxawu ko daara mi dem toog sama kër te boobu yéen ñi ñëpp kenn ku ne yaa ngi sa kër di nelaw daan ndax su ma amutoon téléphone dinaa mën loolu ma daan ko déedéet mu ne am na bis koo xam dafa nekk sapon ñu war ko refourlé ci aéroport bi mu woo ma fekk ñu ngi nodd nodd gu njëkk mu woo ma ñaan ci yàlla ak barkeb bi bi may julli tisbaar la ma ne ma bàyyi nañ ma ndax loolu jërul yor téléphone daan ah mu daal di may tàpp kooku li taxoon mu mu def dafa bëgg nit ñi nga xam ni jegewuñ ko woon ci saayir ñu mën a joti ci moom boo gisee intervention yu bari mu am mu bari woon ko ku ñëw boo ko boo ne ko sa numéro laa soxla mu génne carte bi bind jox la. dañ ko defaloon numéro boo xam ne daf ko bi commencé dañ ko defoon privé mais finalement ku ñëw day bind ci ginnaaw carte visite bi jox la ne mooy sama numéro te heure boo wootee téléphone bi du fay xamul sax fu ñu fay téléphone. su amoon sax téléphone lu bees day woote ne nañ ma ko sa nañ génn carte bi defal ko ci beneen xamul sax fu ñu koy defee photo li mu bëgg téléphone daal mooy moom na am photo Sëñ Fallu batterie bi mën a yàgg mu am écouteur leneen lu mu mën a doon <laughs> yitteelu ko kooku daal jëmm la joo xam ne. yéeme na yéeme na. waaw sunu borom ak dafa mel ne ci doctrine sëñ Fall maanaam lim nuroog sëñ Fall dafa bëri lool parce que man sama maam laa daan dégg na xam ca magi sëñ Fall yi la bokkoon mu may nettali mais li may nettali lépp man bu ma ko gisee comme fekkee ma jamono man sëñ baar la may fa la la laay gis ci loolu ci nim yërëmee nit ñeeg bu àjjumaa nee na muy sànni ay weccet ci kii yeeg yooyu yëpp daal ak ñi mu jege woon njabootu Serigne Touba gi. waaw loolu loolu it Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Abdoul Khadir Serigne Saliou ku ne dégg ko Serigne Souhaïbou bépp leeru Cheikh Khadim boo xam ne jamono daan nañu ci saa yi naan ma ci te loolu ndimbalu yàlla ci am magam bu baax Cheikh Abdoul Moussa Falilou toog naa kenn la tudd mu gërëm ko wallaahi toog naa dégg naa ci lan la ñu Cheikh Abdoul Falilou Cheikh Abdoul Moussa Falilou ci mbaaxam woyofam mu ne alaaj baax doomu laa nangu ma gën a bëgg Serigne Fallou Cheikh Moussa Fallou seere na ci moom ba tay damay wax ni a xam ñoo ba it on dafa na u ñu woo génne ñu juddoo doomu baay ci yoonu nit wala ñu ci gën a siiw muy diggante Cheikh Moustapha ak Cheikh Moustapha Fall sëñ Fall kenn xam na ne cër bi joxoon Cheikh Moustapha bañ na ko daaw jaar turam sama mag di baax rek la ram Cheikh Moustapha am nga ci cofeel boo xam ne bis ñu toog yor yor nii rek Cheikh Moustapha di ñëw dëgër daan tey dama leen seet sama doon sëriñ nga xam ne avisé bi mu mag seen ñu ne léegi ki ñëw wax ko sëñ dama génn ba ci ëpp bi tëdd bala sama mbax na daal di groupe suuf ñu ngi sëñ mu jàpp ci dama ñaanal bu donc kooku li mu am te ni mu ko amee ci ci mag ñi tamit ñi ko féete suuf tamit noonu la leen yërëmi woon man kooku chauffeur boobu bi may nettal ne ma daawut reer mukk daanaka reeraalewut lu mat ñett wala ñeenti ci waa kër Serigne Fallou bis damaa woolu mu ne ma wool sa baay Basiiru mu ak ak suñu Rafa ak baay Balla ma dem wooyu leen sama oto kenn ku ci nekk ma daal di ñëw mu daal mu daal lañ ubbil ndab bi mu ubbi ñu defal leen ñu raxas mu naan na Basiiru mu ne bu ma sañoon de bis bu set bu may xew la may bokk sama doom Serigne nga xam ne sëñ Bas mag la xëy na bugg ko sonal waaye sëñ Rafa sëñ Seexum bi ba Seexoo Balla sëñ Seexum sëñ Fall nettali na ba tàyyi ne dem naa bay teg reer sama kër ñëwoo si ma. mu ngi ñëwut <laughs> kër te léeg sax lan doon naan leen de la ngeen di reere seen kër moo dàq waaye dama leen dama leen di dama leen di jaay doole faaw fii ngeen di reere donc kon cofeel dafa feeñoon ci njabootu Cheikh Amadou Fadal kenn kenn ku ci ne mën naa ne ñu fi nekk nii ci saa yër ñëpp waxuma la sax mag mënut a weesu waaye am na ñoo xam ne sax mën na leen way jur waaw waaye yëgut loolu mi ngi leen di xool rek ngir jëmmi Cheikh Modou Fadal te ñoom it loolu lañ ko delloo barki démb rek bi ñuy def plateau bi wax dëgg yàlla toog nañ fi ba 3 heures du ay doomi Sëñ Fall kenn ku ñu nekk def témoignage boo xam te te ñoo loolu la mën a wëree ci ñëpp ña fa nekkoon ni ñu ko waxee rek teewaale nañ fa ñëpp mais mën na nañoo wër ci ñëpp mu jëmm joo xam ne daal soxna si wax dëgg yàlla dañuy ñaan yàlla fayal ñu ko suñ borom dolli ko yërmande suñ borom dolli ko njëggal ndax oyofaay mënul weesu jëmm ju toll noonu bis dañoo ñëw toog ma ne ko bàyyi de man dama dama dama bëgg nga xam ne tey maa la gën a siiw mu ne ma ah waaw yaa ma gën a siiw mun ne waaw mu ne ma noo tudd ma ne ko sant ma ne mu ne moom kan mu ne ma Alaaji Baar mu ne kon koy maa la gën a siiw. ndax dàkkantal bu ñëw kenn du la <laughs> te loolu day wane na rek oyof di. danga naan ñëw da léeg sax ma naan ne ko waa Mara na def. léegi dama koy maame mu ne ma waas na nga def mu saa am na la bëgg di tey de non wallaahi nit koo xam ne dafa dafa oyof kenn ku ci nekk soo ñëwee ci moom mun nga jëriñu ci moom ak moment boo mën a ñëwee nag bis dafa ku ñëw daan ne ko dama bëgg ñaanal ma maag soxna si suñu borom dañoo yàgg te njaboot te fu na dem nañ fa sëñ bi suñu borom dogal mu ñaanal ko te yàlla dogal ba ba waa ji ñëw di àndaat ak doomam fekkaat na fa mu ñëw mu daan na ko daal di yëkk ti ñaari junni jox ko daan na ko man de man maa fi ñëwoon daaw nga ñaanal ma kii sama soxna la kii sama doom la sama baay laa ko tuddee daan na sëñ bi daan nañ loxo bi daan na ba pare nga may jox ñaari junni nag lu dañ ko ci boppam nga may jox ñaari junni nga xam ne daan na mu ne ko mu ne ko boo demoon tey ji ab ordonnance donc li mu doon ñaar fukki junni nga bind ko waaye daal di ko mu ne ko déedéet dama lay tooñ rek nga xam ne yooyu nit bu ñëwee rek te du la xam sax de. dina moom moom kay moom ku jàmbur baax man jour ba ma demee ci moom damaa yéemu yéemu goo xam ne ba ni ma ñibbee loolu ba léegi dafa des ci man ci dafa ne ku ma mas xam ay at jël addiya jox ma ak yu bare bare bari te soxna Astou Mbacké Gaye moom fa yóbbu woon jamono jooju. naan yéen a génn ci taw ci néegu biir bi nii. dañ dañ daan mën a waa léegi dañ dem ci wane gi bokk ginnaaw néeg bi ñëpp fekk nañ ma fi néegu biiram laa ñun ñi nga duñu dara rek suñu néeg mën mën ngaa mën nañoo nekk ay at duñ ko teg bët li ma duggee loolu moom ma gën a impressionné proog naa cinq minutes di observé néeg bi di xool xam nga ñun dañoo xaw a sob di xool man waaw man lan moom fii ñëw naa ba egsi fii. luñ ko jox nga. waaw lépp lépp ci côté am nii. dem ba mu ñu arrangé woon tey semaine mu feesaat leen. <sighs> doy na koo daal wax dëgg yàlla dañuy ñaan yàlla mu fayal ñu ko. relation boobu moom moo ay mu ay relation extérieure am ñoo gën a sax. ci moom la gën a consolider ci ci ci kii buñ ci jëlee lu mel ne relation am ak maître Ablaye Wade jël ko ak ak Macky Sall xoolal. diggante boobu bu fi bu ci bu ci bu ci lu lu lu ay kasoog yenn amul grâce a moom la te ñu baree bari xamuñu ko. waaw diggante de mën naa ci seere lu baree baree baree surtout surtout ñaar ñooñu nga tudd te mu des keneen muy Youssou Ndour ndax wax dëgg yàlla suñu borom dogaloon na lu mu fekkewul lu bari ci lim ma war a wax su même bu ma ko fekk suma ñu ñëw dana ma ko wax. diggante Ablaye Wade ak Macky Sall boobu de maam lu lu ma ci am li ma ci xam sax xajut ci ab émission yërmande gu mu ko yërëm. jamono yi El Hadj Diouf di toll ci ndënd yi ni ko gone waxee damaa ñëw ne ko yow defi na ñett ñëpp doole ci réew mi yaay seen sëriñ mu ne ma kan ak. El Hadj waaw ma ne ko El Hadj Diouf Abdoulaye Wade ak Youssou Ndour mu ne ma ñoom moom moo ne li kenn kenn du ca xam sama soxla ñooñu ñooñu de loolu ci teg mu daan ne moo ne kenn du ca xam sama soxla de muy diggante boo xam ne dox na ci rôle boo xam ne tey jii. soxlawul sax la ñuy wax ay héros national ak yooyu ndax la taxoon mu di ko def moom jot na ca mu yàlla mais nag malheureusement euh, ñi taxal mu def ko. am wuñ ko noonu nañ lam lam defoon xamuñu ko. am na lu des ndax wax dëgg yàlla taxaw temm taal otoom di recevoir ay 3 heures du matin nit ngir ñaanal ko intervention di déplacé wu di ko seeti ngir rek fexe ba kii na nekk jàmm dafa daan wax Ablaye naan na ko Ablaye. kii mën nga koo mën nga koo bàyyi du la wàññi dara te boo tëjee mu mu mu sonal ko amul la njariñ bàyyi ko rek mu dem daan na ko daan na ko daan na ko da koy bàyyi mu dàq wërsëgam loolu ko wax am na boppam dafa ne ko da koy bàyyi mu dàq wërsëgam daan ko yëf yi noppi nga ci ba nopp fi bii nga ci yem kon kay bàyyil keneen mu dem dàq wërsëgam. xoolal loolu rek googu dëgg kan moo ko ñemoon a wax Ablaye Wade jooju jamono. amul mais Ablaye Wade xam na ne xam na ne. li ko sëñ bi di wax lu koy jariñ la ndax olof na dañ naan mag du yàlla waaye yàgg naa yàlla am na yenn aas yi soo ko amee mënutoo nekk nitu kese boo gisee li ñu daan wax diggante sëñ Fallou ak Senghor noonu la demoo woon Senghor ku ko xool xam ne du nitu kese président Abdoulaye Wade tamit noonu la mel mais yitte ji sëñ bi def ci diggante président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade amul lu ko président Macky Sall mën a fayee ci àdduna bu jëloon budget national jox ko tuddee koy doom defal ko lépp mënu ko fay. Mhm. mais entre parenthèse est-ce que kóllëre googu ba léegi président mi ngi koy dox ci diggante comme sëñ bi nekkatu fi njabootam ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di am di jàmmam. amul daray alaaji baara ju président Macky président Macky Sall masa réagir ci dara. parce que dañ ne poste sëñ Galas bi kóllëre gi amoon ak sëñ Baara moo tax mu jox ko poste député bi. waaw loolu première fois bi la woon mais xam nga député Sénégal yi dañ ciy jaawale député yow yaa koy def sa bopp. kenn du fekk awa dëkk mbakke ñu ñu dugal la ci liste Kédougou dañ dañuy dem ba say bokk. mbirum localité daal la. ñu jiital la say bokk say bokk yóbbu la député moom maanaam li liggéey du ministre du directeur du conseil spécial du nangam député yaa koy liggéey suñ galas biñ ko dugalee ci liste bi moom moo liggéey ba falo campagne loolu man bokkoon naa si ñu topp ci campagne am. ci biir bokkam la nekkoon. mooy nit ku am ay bokk nit ku bokk yëpp bëgg. parce que président bu dugaloon liste bi tamit te askan wi nekk Touba voté wuñ liste bi kon du dem. la preuve tout récemment kay am na ñu mu def loolu ñoo xam ne jàll. bii jàll rek moom bi ñu ko dugalee mi nit ñi voté wul te demuñu. loolu du du du du du dëgg la mën nañu wax ab cër la mais du du jërul tudd parce que amul njariñ yow da dañ lay bëgg dugal ba say biir bokk ñu dugal say bokk ne la ah, seen say bokkat ñoo la mën a yóbbu fee ñun kat li ñu bëgg rek mooy yow wax nañ la bokk nga ci war a dem. waaye nag say bokk ak say nit ñoo fexe ba nga dem. kon daal en tant que koo xam ne ku jege woon Serigne Bara nga digganteem ak euh, Serigne bi lépp fekk la fi nga xam ci lu bari jàpp nga ni fayut naar bi xoromam. déedéet waxuma la fayut naar bi xorom daa naar bi sax la naar bu desoon ci xorom gus ne da koo te te gis nga gis nga soxna si am réew du lu ñuy séddoo waaye ku bokk ci réew mi da nga ci am wàll rawatina dib Serigne. ñun njabootu Cheikh Modou Lamine mosuñoo dem palais mosuñ ko ñaan mosuñoo bindu leetar màggal ci télévision laay wax amul luñ mës a def bërki dem bi ñu def avant première bi biñ ne maa wool président Macky Sall ma na leen woo yàgg woo ñu du ñëw dem sonal sa bopp la woo nañ leen ba tàyyi te ñëwuñu te loolu Sénégal dañ ko def ngir rafetal. ñoom kon màggal du fi envoyé sa délégation màggal sëñ Baare. Ah, dëgg la ma la délégation bi ab lobby la lu ñuy programmé la. luñ loolu lu ñuy programmé la gis nga ñëw na fii jaale ji ku nekk loolu du suñ problème ñun am lii dal ñëpp dal nañu soxna sëñ Baara nelaw na soxnaam soo xam te ne amoon na relation ak président Macky Sall. mooy soxna Aji Faat lay wala. soxna soxna Aji Amina Gueye. ah soxna Amina waaw yaay sëñ Galas Amina. musul recevoir njabootu Alaaji Baara. amul benn honneur bu mu leen mës a defal. mais est-ce que ñi ko defal yóbbu nañ mais loolu tamit est-ce que du ay yàq-yàq yu dem ci moom di wax ak yu mel noonu ci njabootu sëñ Baara ak genre yooyu moo tax xëy na taxut leen moom mais yow loolu moom relation bi ñu koy dox yow yaa ngi ci àndoon ak sëñ Galas ak ñu bëree bëri. bien sûr bien sûr non man man xam naa lu bëri te moom bi muy bi ko sëñ bi intervenir am na ñu doon yàq te ñun ñu jege woon sëñ bi yàquñu woon loolu te amul jëriñu ñu dara ñun réew moom li ñëpp am lañ ci am. mais nag comme que Sénégal jamono yi ñu toll tey bi ñu bi ñu watee ba pare kenn ku nekk yaa ngi bëgg a wala nga bëgg ñu sa waay. mooy kenn ku ne dana wut dana wutal foo nekk ngay lekk xooluñ ba xam l'homme qu'il faut amul benn benn militant bu bokkul ci seen coalition. bu yor benn responsable ci réew mi c'est grave. c'est grave kon ñu ñoom compétent wu ñoom. ku bokkul ci mooy rupture bi ñu nga xam ne gisoo fi rupture. am réew duñ ko yoree noonu. réew da ngay nit jàng nit ku am xam-xam. nit ku maîtriser la lañ ko def Sénégal ngay gis ku nekk université jàng droit pare ñu jox la culture. wala santé. li naan Sénégal dañ naan la koo xam. boo demee États-Unis ñu ne la loo man France ñu ne la yan diplôme nga am. merci loolu mooy Sénégal mais réew mi ñuy pàccoo di ko séddoo gis waxuma la nga am nga am xam-xam sax de waaye da xaritu Marème Faye sax day am xaalis. ah wax yii Marème Faye am yaay gën a ëpp bës xam président. xam Marème Faye moo gën xam président. léegi Euh, première dame ak euh, fondation servir le Sénégal. ah boobu <laughs> soxna Maama mais xam nga première dame la. ah xëy na première dame président ak bu ñeneen ñi dañoo bokkul de. moom moom borom këram dañu fal moom. nag xam ko nag moo ëpp sax kii moo ëpp avantage xam mare moo ëpp xam mac ëpp ah, <laughs> Sénégal nga gis ko xëy li gontu yor xaalis ba pare ñun askan wi ñoo sàccloo politicien yi ndax politicien bu la ci joxul nga xas ko baax tey leer na ne li ñu lay jox du alal. Hmm. yéen yow pour si sa xalaat bu gàtt président nan la waroon a sàmmee kóllëre sëñ Baara ak njabootam. li muy def ci ñëpp li muy def ci ñëpp mu def ñun ay doomu aadama lañ suñu ay nawle lañ fi nekkal. Hmm. cër bi ñu am ci réew mi ñun waxuma sax bi ñu seetlu sëñ Bara de waaye bi ñu am ci réew mi ñun. am en tant que citoyen. bu ñu ko joxoon amul problème ñun cër boobu garaaw mais li problème bi nag moom dañ ñoo joxut ñun li nga xam te ne ñun moom la ñu moom. loolu moom la engagé mais ñun jooyuñu daal. Mhm. yàlla ak sëriñ bi moo ñu dundal. Mhm. li ko li li entre parenthèses am li daal li daal président Touba 601 bureau de vote. amul benn boo ci gagné loolu yow man jàngat nga ci am en tant que koo xam ne yow ci dëkk bi nga dëkk xam nga fi lu bëree bëree bëri man jàngat nga ci am. wax naa ko ku ko jege wax naa ko ku ko jege le 7 hmm? ne ko da ngeen a ne demal jox ma lee andiwu ko nga jëlaat keneen ne demal jox ma lee andiwu mu jëlaat keneen ba ma joxoon andi ko noo war def mu ne yaa war def jëlee ko sa bopp. Mhm. soo yónnee ñetti yoon soxna Awa jotoo nga yónnee doo dem ko sa bopp. Mhm. mu ne gis nga dëkk bi président Macky Sall mi ngi góorgóorlu ci la man waaye dafa waroon a ci buntu jaar ci fenêtre. Mhm. faaw buy génn am lu dagg ci yaram wala wala ak rythme jeex na moom comme du présenté waat bii moo nekkoon dernier kii te local yi ah, bu fekkee troisième mandat bi waa Bokk Yaakaar dox du <laughs> ndax Sénégal na fay am <laughs> daal nee na on. <laughs> soxna pour mu gagné ko. nan la koy changer pour nga laabiré ñu ko ñun ñu xam ko parce que man wax dëgg yàlla mbir mi dafa xaw a jàll jaxasoo ci sama bopp. stratégie bi soxna si lu yomb président Macky Sall li mu ñëw Touba lépp benn kanam lay gis. muy muy ban. mooy kanam kanam protocole maanaam ñi ko ñi nga xam ne ñoo yor ay nganam ñooñu lay gis musul recevoir jigéeni Touba musul recevoir xale Touba dafa war a am na man ñi ma mënut a gis Touba dañ maa bëgg gis wala dañ maa bëgg a gis naa leen seeti ma. lu tax lu tax ñëw ñu fëgg ku mu gis rek daa am koo fa xam boo dee ñëw ci ab dëkk nag juróom-ñaari at. ñi may wan genn kanam te ma soxla yeneen kanam yi may am ful sama fulay bopp dama wëri yeneen kanam yooyu amul benn cër benn paar bu ñu joxee ci réew bu gone tubaa am ak jigéen Touba te ñooñu ñooy wate ku fal ñoo la fal ci saayir ku folliku ñoo la folliku te président Macky Sall bu xasee dugg fee résidence diw de la soxla lañ koy wax diw ngi ñëw diw nee na nangam dangay ñëw pare mu doog laa xam. léegi nag ñi du leen wëri moom laaj leen ba xam lu tax ñëwuñu mais loolu moom yaakaar naa du gaaw a a faju ndax lobby bi nekk ci ginnaawam ak li ne fi ci biir Touba yow nga xam ko ma xam ko yaakaar naa du gaaw a boole ci ci coono lay dëkk ay noonam lay lay dooleel bàyyi ko bëgg moo tax ci mukk ci Touba non parce que man souvent damaa gis ne ko nga xam ne ñoo ko doon xeex démb ak bërki démb tey ñoom la jël féetale leen ci kanam ñi ma gisoon démb bërki démb jamonoy dekkal ngor 2009 ñu jàpp ci ba léegi ñooñu laa gis ñu lese leen en rade ci ginnaaw te région ci biir réew mi. grave. nga xam ne ñu ngi laam-laamee ne amoon na nu doon demee rek yëf yi moom. deuxième tour du ci ñàkk ak liñ ci ci ci topp yëpp ci ay wax yoo xam ne ñun duñ ci egg. <laughs> non gis nga boo boo liggéey ci cours euh, maturité population bi. man ñii luñ jàng parce que ñun ñu nekk ci daara yi duñ ñu boole ci réew mi débat wu télévision bu amee sax problème boo amee ci réew mi sax du ñu woo sëriñ. ñun jàpp nañu mbàkke mbàkke ak yooyu moom. sa mbokk yi du ñu woo expert. ku siiw rek marché marché sàngam day tàkk ñëw benn politicien mu wax ci télé yooyu dara jëy du ñu woo expert mbay mi dem problème ñu woo du ñu woo expert njàng mi dem problème du ñu expert Sénégal mosuma gis débat expert laax de waa jàkkaarloo ñoom ñoom mën nañoo yor Sénégal Afrique sax parce que idée yi fay génn ah, ba xam nañ am nañ xam-xam ci lépp gan gu ñu indi rek ñoom am nañ xam-xam ci sa ci sa problème bi mais ñooñu lu def lu ñuy def ci télé duñu leen yóbbu ci état bi ñu dem liggéey gis nga am réew kenn ku ci nekk dafa am foo mën a yem. Mm-hmm. pour sa capacité. merci loolu la ñuy jël boole ko mu nekk réew. mais Sénégal nit ku siiw lañu ñu xam. ku bëgg xam lépp ku généraliser xam nekk fépp. Sénégal laa gis ñu ñu jël ministre consultation bi dama 30 minutes c'est grave. taxaw ne képp ku gañewul eh, sa sa place. dañ leen sanctionné. ak loo manti xam ak koo manti doon. kon diplôme fu mu amul njariñ gañe moom ak diplôme sa diamètre bokkuñu dara. daal réew moom boo koy xool ba ci biir sax da ngay wax ba ci yàgg nga dugal sa bopp ci ay biir doo doo xamante ni da ngay réer daal ci say ci sa ci say say xalaat ba xam man réew la ñu yor. déggoo mën a leen li fi nekk ku koy wax doo jaamu yàlla doo liggéey parce que wax ngay dëkke ba dee jot nga dee. kon yàlla ñu ci àll sa kon nañ teeñoon ni nañ liggéey kon te bàyyi wax ji kon. non da nga leen bàyyi ñu dem. <laughs> nga dem yow ni nga nekk ci li nga nekk. parce que ñun la sañ sëñ Fall waxoon rek dañuy yilif ñun fi ne ñu lu mën a xew ñu dañuy yilif du ñu yilife te ñu mënuñoo ñàkk yilif boo fi tegee kii it ki nga fi teg ñoo yem. dañ lay yilif ba tey. Sénégal ngay nekk ministre yokk xam président am xaalis man man am naa ministre sport bu France. sama xarit benn bakkan la. loolu taxul mu kii de. le cinq bi laa jógee kër Paris <laughs> le deux le deux euh, mars ñoo reerandoo <laughs> te pourtant amul xaalis. benn école muy dawal muy dawal. fi de <laughs> ko fi xam ministre tekki ngay def moom. ba léegi mu ngi dawal foog daan na xam restaurant yi ñu daan dajalee dañ lay def. mais Sénégal foo ko gis ñetti mbërën ko wër yow nga yor alal réew mi jug nga may gàddu gàddu ko. kon duñ am buzz ak ak tamit léegi ci buzz bi la bokk da nga gis am Awa Ndiaye moo xam ne moom kenn soxlawu ko kenn lijjantiwu ko muy gàddu di yor ñaari bër duñ lay liggéeyal jëm si ci ñun di ñu ko garde xanaa jubut sëñ bi buñ toppee waxtaan xam naa bi <laughs> ñu ngi may signalé que li des ci waxtu yu bariwut màggalu ko sëñ bi dañuy dellu si waat tëj parenthèse damaa defoon entre mhm. euh, màggal gee ngi ñëw euh, fii ak ay fan yu néew moom moo ci des lan ngay soññ ci njaboot gi ak naka ngeen ko fas yéene dundale fii ci aal yi ak fii tamit euh, ci Touba yoon daaru fi nga xam ne moom mooy sa màkkaan li may njëkk wax ci soññe bi mooy képp ku sunu borom man lu baax ba ca jiitu mooy alquran julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam xasida ak ñaan ci sa làmmiñ ci olof ndax yàlla dégg na làkk yépp ñu ñaanal yàlla sunu boroom sunu ay waajur jiital ci Cheikh Mamadou Lamine ndax ci weeram lañu ñu toll mook waajuram mu Cheikh Mamadou Fadal waaye yéen ci waale njabootu jullit yépp fu daara alquran mën a nekk rek ñu ngi la koy ñaan fu ñaari nit mën a daje te mën a wax lu baax mën a jàng alquran mën a def ay bernde ndax damay faral di wax ne soxna Awa lu ëpp bi lu ci ëpp nun ñi màggal noo koy lekk ki ñuy màggalal mu ci sax laaj ndugg mi ñaata la ñu ne temps. yi ñaata la ñu ne temps. direct télé <laughs> ñun la. Mm-hmm. mais ki ñuy defal moom lan la ci am. ñu deux pour cent lañ ci war a am maximum. ñun ñooy lekk xar yi ñooy naan boisson bi ñooy naan ndox mi ñooy lekk pom bi ñooy lekk orange ñooy def lépp. ñooy sol jeesneer te feeñ ci télé yi léegi nag ñun lan la ci am. moo tax dañuy dañuy dañuy dellu si wax xel yi. Mm-hmm. jàngat Alxuraan màggal kilifa boo ci njëkkee wala nit koy ñaanal boo ñëwee ci jotaay ba jotaay ba ni ngay delloo war a yor sa kurus. cérémonie moom gërëmaate baa fay ministre diw. président diw. cérémonie loolu laa wax keroog benn waaye mu ne ma doo xaar cérémonie officielle ma ne ko wax nga ko man du ma officiel officiel cérémonie officielle c'est officiel li waaw léegi man mi nga xam du ma officiel lu ma fay def toog di wax diw diw ne diw ñëw na. assisté gërë gërëmaate bi rek ak tàggaate bi. a jëlee ci te gis nga cérémonie bi. Euh, ah, euh, li ko indi mooy maanaam ñi nga daawul mën a gis. ci bis bi hmm. xam nga kilifa sëriñ bi mënuloo gisandoo ñëpp. ñëpp en temps mu génn ñëpp gis ko ñëpp mu gis ñëpp ñëpp gis ko. loolu nekkoon cérémonie mais dañ hmm, léegi. kay nag moom moom fa dóor ya nekk. sëñ Mourtala yal na yàlla dolli yërmande ñëw nuyoo daan ñu leen di fàttali li ñu fi indi muy jaamu yàlla te nangoo liggéey topp ci Nabi sallallahu alayhi wasallam tëj. mais léegi 6 heures de temps 3 heures de ni waxtu bi jeex na tàkk ñu ngi lay jaajëfal looy tàggatoo bu gàtt rek tàggatoo bu gàtt <laughs> bu dul tàggatoo xam naa ni après màggal gi moom boo noppaloo ba kii dañuy ñëwaat wax largement ci réew mi ak yàqu-yàqu yu fi am incha allah. incha allah tàggoo moom mooy sant rek bu baax di la sant encore une fois di la gërëm di gërëm ñi nga àndal ñëpp di xa di wax tamit ne lépp lu ñu fi juum rek nañ ko baal waaye lu ñu dund rek te gis ko loolu ñuy wax di la sant encore une fois di ñaan yàlla sunu borom mu teewe ak ay déwén yu bari ba ki nga xam te ni moom la ñuy jublu ci bisam muy wajuram ak ak ak doomam si Amadou Lamine yàlla dool leen jéggal dool leen yërmande te ci woo mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maaleykum salaam wa wa barakaatu jërëjëf sëñ bi Mbacke ñun ñoo la war a jaajëfal ndax. à chaque fois heure bu ñu la soxlaa yaakaar naa oyofte gi ñu doon gis Cheikh Mamadou Lamine sa waajur gis nañu gu ko raw ci yow ndax eh, bu la neexoon ak sa daraja ndax li ngay wax doo taxaw ci buntu kenn di ñaan te li ñëpp am am nga ko waaye terewul nga wàcc sa bopp maasee ñëpp ci mbedd yi ngay dox di nuyoo loolu moom c'est Touba ñëpp ko mën a mën a mën a seede moo tax tey ñu mën a ñëw sa kër nii euh, àlli fii def si ay émission yu bëree bëree bëri ba fépp ñu koy sollicité ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci oyofte googu di wax ne bi nga nekk nga nga gën cee ndax murit yëpp apprécier nañ ko di la sant bu baax di la gërëm di gërëm tam mbooleem techniciens yi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ba ngeen mën ñëw teg bët Cheikhouna Serigne Saliou Serigne Fallou ak Khady Niang ci montage bi ak euh, ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci rédaction bi Ousseynou Ndiaye Mame Fatou Assousila ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen di daje nag prochainement ci beneen jotaay sur la question incha allah jërë ngeen jëf